jërëjëf Babou ci invitation bi di sawar tamit di wax ci euh, wàllum Jeux olympiques de la jeunesse euh, di répondre sa question bi rek di wax ne Sénégal moom mooy dalal Jeux olympiques de la jeunesse ci 2026 euh, muy Jeux olympiques de la jeunesse yi njëkk a organiser mun naa ne si wàllum Jeux olympiques moom la ñuy njëkk a organiser ci Afrique beneen bi tamit dama bëggoon joxe benn mbir di ko clarifier Sénégal Jeux olympiques de la jeunesse lay organiser mhm. organisé wul les grands jeux comme yu am Paris effectivement parce que dafa am lu ñu naan Jeux olympiques d'hiver yoo xamante ni ay seniors ñoom ñoo koy pratiquer am Jeux aussi paralympiques yi nga xamante ni moom mooy xew nii di Paris moom la ñuy wax les JOP muy Jeux olympiques paralympiques yi nga xamante ni mooy 2024 di recevoir ne Sénégal mën na organiser les Jeux olympiques de la jeunesse beneen bi mooy liggéey bi tàmbaliwul tey liggéey bi tàmbali na depuis ba ñu ko joxee léegi comité d'organisation bi mi ngi liggéey ci préparation aux Jeux olympiques de la jeunesse. comité d'organisation bi li ngeen gis sànq président Ibrahima Wade mi nga xamante moom mooy coordonnateur des Jeux olympiques de la jeunesse. Euh, doon euh, jànkarloo ak euh, mairie yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci lu ñuy wax les clusters mooy fi nga xamante ni foofu la ñu organiser jongante yi ñoom ñëpp c'est pour waxtaan ak ñoom fan la ñu toll ci mbir mi sur la partie infrastructure. parce que boo xoolee comité d'organisation bi dafa bëri ay direction man mii di wax ak yow damay gérer direction du ñaan la direction euh, sport suñu direction sport Sénégal 35 sport ñoom la ñuy def fii ci Jeux olympiques de la jeunesse ñu ngi koy defee Diamniadio Dakar ak Saly te ci Jeux olympiques de la jeunesse am na 41 disciplines comme ni nga ko waxee sànq. am na mhm. plus de 229 euh, épreuves ñu fi war a def. Mhm. actuellement nii ñu ngi waaj a finaliser lépp loo gis rek la nag. ñu bëri nag gisaguñu communication bi demee comme ni mu war. Mhm. parce que tey ji boo xoolee Paris mi ngi waaj a dugg ci Jeux olympiques de la jeunesse kii Jeux olympiques yi et Jeux olympiques de la jeunesse dafa am moment boo xamante ni si la communication bi di démarrer propre pour Dakar 2026 avec suñu collaborateur yi nga xamante ni moom mooy euh, waa CIO. tey jii euh, mun naa ne suñu directeur de communication jamono yi may wax ak yéen ñi mi ngi ci euh, Lausanne. Mhm. doon présenté. li ñu naan le plan de communication de Dakar 2026. Mmh. mais pour répondre mais pourquoi ngeen xaar di boobu tey pour jëmmal li nga xamante ne moo di communication parce que Sénégal yu bari sentir nañu sentir wuñu ne ne maanaam ñoo war a organiser li nga xamante ne moo di JOJ yi. xam nga euh, ñu bari dañ naan sentir ñu ko il faut nga demander ñan ñoo ko sentir parce que jàkkaarloo ja def nañ fi ay communiqué yoo xamante ni bari na. ku mel ni presse sportive bi rencontré nañ leen plusieurs fois pour wax leen ne Jeux olympiques yi naka lañ koy organiser am na lu ñu naan festival Dakar en jeu boo xamante ni chaque année. dañ koy def festival mosul am ci Jeux olympiques soo gisee ñu def festival Dakar en jeu di ko def période novembre octobre c'est pour mettre ko en fait dans di bopp Sénégalais yi que à cette période bien déterminée mooy mooy euh, novembre octobre ak novembre si les Jeux olympiques de la jeunesse di am moment yooyu yëpp c'est une moment de préparation euh, à la jeunesse pour wax leen na à ce moment bien précis dinañ def les Jeux olympiques de la jeunesse les fédérations yi may wax ak yow 35 fédérations yi nga xamante ni moom mooy moom mooy ñoom ñooy euh, pratiquer les Jeux am na ay réunion yoo xamante ni ñu ngi koy def ak ñoom pour di leen wax ne fa lañ toll tamit ci wàllum préparation. Mm-hmm. donc mun naa ne am na benn partie boo xamante ni surtout mairie yi ngay gis ni maanaam mairie de Dakar moom mooy la ville haute. am na ay réunion yoo xamante ni mun naa ne presque chaque semaine dañuy nekk ak ñoom di wax ak ñoom maintenant communication bi nga xamante ni de manière globale bi nga xamante ni population sénégalaise bi yëpp lañu ko war a def am na fu ñu ko commencé parce que am nañ benn département boo xamante ni moom la ñuy wax engagement et mobilisation de la jeunesse te suñu responsable Fanta Diallo jiite ko mun naa ne tey aujourd'hui am na benn stratégie boo ngi woon ci tare ji mooy terrain pour sensibiliser la population ku mel ni euh, Pambal euh, fan yële ci passé tamit demoon nañ ci département wu Tivaouane dem foofu ci biir euh, Pambal. Mhm. def foofu tamit ay activation ku mel ni Kolda ku mel ni Ziguinchor ku mel ni Baba Garage ku mel ni Kaffrine donc loolu yëpp c'est des planifications boo xamante ni c'est pour préparer la jeunesse sénégalaise préparer aussi coins yi nga xamante ñoo gën a reculer ci Sénégal que Sénégal moom mooy organiser les Jeux olympiques de mun naa la ci euh, gën a xuusaat. wax la sur la partie préparation. Mhm. fan lañ ci toll exactement. voilà merci beaucoup euh, Bal.